mosul jog di dugal sama noppi doléance wa ngent muy jakay muy employé yi muy financement famille donc ma koy gërëm bu ko na def témoignage sen kanam ma ngi gërëm Modou ndjay dama ne kooku mooy kan daf ngeen àndal ñu ne am ngeen àndal kan mooy borom Thiès ñu ñëw demal. Bouncing it out. Get back. đây, kay déglu ma taxawal taxawal taxawal taxawal dama bëgg ngeen way ko ah nañ ko way parce que yéen ay doomu Siré Dia ngeen ah nañ ko dégg di jéegal demal camion musique bi laay waxal taxawal mais du yow ayca Siré Dia dene ko leena wa wala ay ken bañu

ci la ñuy dox guddi ci la ñuy dox suba ci la ñuy dox ngoon te ci kàttanu yàlla dina ko am le 24 incha allah. beneen bi di wax ni suñu la gisee dañuy profité ci occasion bi li nga xamante ni jeunes yi ñoo ma ko yónni man may jeune ànd ak ñoom di wax ni bi ngeen fi ñëwee dimbali ngeen ñu ci suñu yaay yi ak ci suñu papa yi mais boobu ba tey monsieur le directeur ñun jeunes yi ñu ngi toog di xaar boobu tey jeunes yi. boobu ba tey ñun jeunes yi ñu ngi toog di xaar waxoon nga ak ñun nii ñu dinaa fi dellu si waat dina am buuñaa boo xam ne dinaa leen ko defal yéen jeunes yi jeunes yi bëri nañ ci koñ bi y a des étudiants am na ay ouvriers am na lu ne emploi des jeunes yi tamit soxla nañ ko beneen bi li ñu gën a soxla mooy suñu koñ bi zone nord ñun sommes les jeunes yi nga xamante ni ñun ñoo la njëkk a topp ci zone nord loolu mun naa yëkkati suma loxo moo xam ne ñun ñooy jeunes yooyu njëkk fii ci zone nord li tax tamit ñuy gën a jàpp ñun fii dañ cee bokk suñu kër la Sidi mii suma xarit la ay nii na suñu frère la di wax ne pare nañu mag ndaw góor jigéen jàppale la topp sa ginnaaw gëm nañu la te gis nañu ni nga taxawee jeune Thiès yow yaay ki nga xamante ni yow la ñu njëkk am ci Thiès emploi des jeunes li ñu ko def ci Thiès kenn mosu ko fee def loolu kontaan nañ ci te loolu damay wax grâce ci président Macky Sall la jóge kon tey bu fekkee ni dañoo soxlawaat leneen am ci leneen loo xamante ni tey ci loolu la ñuy wax ñun fi ñu nekkoon démb ak barki démb lañu nekk tey mooy ñun amuñu lu dul suñu koñ bi di ngent extension suñuy yaay lañu am ak suñuy papa moo tax ñu tuddee suñu koñ ngent almadi que monsieur le directeur nga gën ñoo jàppale gën ñoo gestu di la wax ni incha allah fi nga xamante ni foofu la ñu gën a amee doole muy Issa dem ak Petit Thialy dinañu jaayante dinañu def lépp ba incha le 24 di nga dégg carrément liñ fi def muy jaloolo liñ fi def. pour terminer tamit ci laay insister te nit ki soo koy ñaan danga koy ñaan li mu am nit li mu amul mënoo ko ko ñaan monsieur le directeur nga jàppale ñu dimbali ñu ci emploi des jeunes. ñi ngi ci koñ bi te sox nañu ko encore une fois dina la tàllal suñu loxo nga jàppale ñu gëm naa ni ñun li ñu war dinañ ko def fi ñu nekkoon dafa rukke ay coow sax am na xaw na fee am mais loolu du ñàkk li ñu gën a soxal mooy si jëmm ji xam li ngay liggéeyal Thiès xam fi nga toll ci cees ak ni nga bëggee waa Thiès di wax ni zone nord pare nañu nekk sa ginnaaw tey ak suba ak ginnaaw suba vive APR vive le waaye Facebook moom ay fi te dama ne làmmiñ du morom Siré Dia l'efficacité dans la science mooy ay ni na day liggéey ci suuf. jaajëf jaajëf Madiagne jërëjëf sëñ DG directeur général de la pêche maa ngi lay remercier ci déplacement bi si bi nii nga déplacé wu naka ñu yomb na mais mais ma remercier aussi ñii nekk parce que affaire bi defee wuñ ko ñu ngi ko defee woon ci buntu kër ga fële

benn benn benn benn forme la rek forme de bataille la mais it dañ leen ciy fekk mais ci ci terrain bi dañ leen ciy fekk aussi mën leen ci te incha allah le 24 lépp dina leer waaw. dès le premier tour sax bu loolu weesoo yi DG ñëw nga fi ñu dalal la jeune sànq jeune Dieng mu koy mu ngi koy absenté foofu noonu loolu it lu jar a signaler la ñun bokk nañ ci jeune zone nord fii nii ñoo xamante ni ñoo leen njëkk a jàppale fii nii ci Thiès la jeunes yi depuis 2013. Modou Fall mën na leeral lu may wax nii Chérif la même chose Samba Ndiaye ñi xam na lu may wax ñëw nañ te tey tey du dul benn du ñaar du ñett booba temps bon melu woon mu mel kon donc ñii amal leen jógal jeunes yi jeunes yi nekk di la jàppale luñ la woo ci ci dañ ciy ci si lépp. jumaa ji tamit danaa ci wax parce que xëy na wax ñu ci lu mooy financement tey dafa nekk loo xamante ni da nga koy def da nga koy def xam yëpp mën nañu mën nañu loolu. kon it jumaa la bu nekk en érection booy romb lii duñ ko gis en santé la nekk waaw ba pas yi ñuy kër bi ñu xaar mënuñu déplacé wu mais seen porte-parole la seen message la foo ma fàttali ñu ko l'emploi des jeunes aussi l'emploi des jeunes na lu ngay xaw a fàttali la ci zone gerte extension bi maa la koy fàttali bokk nañ ci njëkk a kii fii ñu tudd mais xëy na jàppale ñu ci daal ci l'emploi des jeunes waaw suñu waaw suñu femmes suñu femmes yi tamit financé nga leen te boobu ay femmes de développement la ñu nga leen gisee te financement boobu noonu nga leen def ñu ciy liggéey muy jur muy am ay intérêt ñoom ñu ciy teg euh, de deux semaines wala un mois ñu wooma ne ma lii leen gagné ci xaalis financé loon ñu jël xaalis bi def ko seen poste te doo ko du ko lekk te loolu noonu buñ ko defee surtout la ñuy jëmale ci kanam parce que financement balaa moo neex da koy liggéeyee muy jur di jur di jur ba mën a lekk moom ñii di wax ak moom fii la yor benn réseau donc te ci xaalis boobu noonu la yàlla def ba loolu kon loolu lu jara lu jara signaler la au passage waaw pour ba nañu monopoliser parole bi nag parce que yaa ngi nekk ci yoon te bon gën a guddee waaw maa lay bàyyi ñoom nga waxtaan ak ñoom jërëjëf asalaamaaleykum waa Gent maa ngi di nuyu di masawu coono di jégalu yéen a ngi doon xaar fële mais itinéraire bi moo obligé ngeen déplacé wu ñëw fekk si ñoom. maa ngi ciy li ma bëggoon li ma bëggoon ma fekk leen fi ngeen aménagé woon ma fekk fekk leen fekk seen imam seeni i pape ak yooyu waxtaan ak ñoom mais heureusement tey nii na transmettre na le message. di leen gërëm di leen sant te di jiital ci nuyoo bi ay nii

donc di gërëm Mati Diop aussi di gë gërëm ñi fi yëkkati kàddu bi yëpp surtout jeune bi il est très à l'une déglu naa la bu baax wax nga défendre nga les jeunes ci emploi yaa avec insistance problème mu emploi jeune dégg naa ko bu baax bu leen wax dara incha allah ndax ay grâce à Aïna ak yéen nekk ci terrain bi fexe leen 24 2019 ngeen voté massivement pour Macky Sall ñu dès le premier tour li ci kanam moy pour en matière d'emploi go boo notel ngent sous couvert ay ninatine waaw vous yi bu leen wax dara gis voilà inchallah vous rabi femmes yi ay financement yi dinaa gën a dolli incha allahu rabbi donc maa ngi leen di gërëmaat encore seen accueil bi ak chaleur yi ak kàddu yu rafet yi ngeen fi yëkkati vraiment maa ngi yéen ba ngeen di géej léegi nag maa ngi leen di sas seen centre de vote balaa 18 heures ngeen gagné ko ñu falaat Macky Sall dès le premier tour gagné Thiès. miiɗi mi deeda ɗen noppulo jiɗi donc vraiment contanna ayine encore une fois merci alune merci mati merci vraiment gërëm naa leen yéen ñëpp waaw ku lim naa leen di fond du cœur alhamdulilah maa ngi nuyu waa Thial yëpp di leen remercier. oh depuis 6 heures. oh ñoo teel a génn. depuis 6 heures borom casquette bii nii kii kii. waaw lii lu ñu sakku woon loolu. borom casquette bi mais tey la ko yàlla dogal ndax ñun. yàgg nañoo bëgg président Macky Sall fii ku nga xam-xam ni séeréer li fi nekk a tukulóor yi fi nekk ak joolaa yi fi nekk ñëpp président Macky Sall la ñu àndal moom dañ ko bëgg mu jàppale ñu ñun groupement yi am nañu cinq groupement yi nekk fii am ñu jeunes yu nekk fii suñu doom yi ci lycée technique bii leen jàngee am nañ fi bac dem université jàng nañu ba pare ñoom ñëpp ñu ngi fii seen kayit yaa ngi fii ñu dem ba léegi liggéeyuñu am nañ ci ñoo xam ne am nañ chance ñu ngi remercier monsieur le président de la république ndax am na ñoo xam ni monsieur le président jël na leen en charge di leen fayal ñuy jàng ci ay université privée ci suñuy doom lañu yëg nañu aussi 25000 francs yi muy joxe yëg nañu ko ndax am nañu ko fi am kon donc ñu ngi remercier monsieur le président yow monsieur le DG aussi ñu lay remercier ndax egsi woo fi woon mais kon ñi ngi yëpp gis nañu li nga fa def dégg nañu li nga fa def man teg naa fi suma bët ndax man buntu deb balaa jóge ñëw sëy si fii bi ma ñëwee sëy si fii ci koñ ma gis lu baax li ngay def ma bëgg nga waali ko indi ko fii ndax parce que yow suñu tonton kon ñun war nañ laa mën a jàppale kon dañoo bëgg nga jàppale ñu yàlla jàppal ñu incha allahu rabbi ñun nana waan monsieur président de république ñun waa Thiali pare nañu pour voter laat ko ñun ñëpp mais les jeunes et les groupements des femmes yu nekk fii ñun ñëpp pare nañu kontaan nañu bu baax monsieur DG sax laa lay wax nga sama tonton nga ndax kon bu tuddee ba laa jógee kon man foofu laa bokk. ci yow laay njëkkee maa ngi gërëm ñu fi sant ñu fi gërëm naa ñëpp vraiment lii rafet na Macky Sall vraiment moo fi moom. waaw ah s'il vous plaît waaw moo fi moom ñun les jeunes je parler au nom des jeunes ñun ja dawal Jakarta mooy suñu activité fii te dafa metti tous les dix jours tous les semaines nga dégg ne nit faatu na ci dawal Jakarta ci loolu bëgg nañu nga jàppale ci monsieur le DG je vous respecte beaucoup je vous estime beaucoup vous êtes mon idole franchement en plus de ça suñu quartier dafa am mal électricien électrification mbalit bi tamit sonal na monsieur le dernier boo ñu ci mënee jàppale loolu tamit dinañu neex torop parce que yow gis nañ li nga liggéey Thiès gis nañu li nga liggéey Sénégal vraiment content nañ ci Macky Sall. merci. asalaamaaleykum mbooloo bi. Well, Mali is a new, new organized talent. We have Captain Mike Wine. We have Grim, we have Masamu Choro. Kudina, we go to the Indian Waitar. We have a Jeff. We have a Kudina, we have a Dua Obi. Dengan wahid, dia kenal aku. Dia kenal aku. pour auto encourager l'emploi jàppale leen ak financement PAM am na ku fi tudd affaire mu mbëri affaire mu mbëri ça relève des maires bu ngeen bëggee ma topp affaire mu mbëri teg leen maire ci nekk seen bopp nekk Thank you. donc mais li aju ci man loo xam ne mën naa ci dara wàllu emploi la ak wàllu financement loolu incha allah góor noote cinq groupement noote nga ak emploi jeune voilà incha le 24 février soirée bu 2019 donc Palace Macky dès le premier tour incha allah li ci kanam man ki ma jël ma ragal ma ko ma defee promesse am pour tenir incha allah ci kàttan suñu borom donc fexe leen balaa 18h wala balaa midi ngeen faral président Macky Sall bulletin baa ngi nii xaaral leen ko mooy bu baax waaw. waaw. incha allah donc vraiment maa ngi di gërëm di leen sant. vraiment waaw kontaan naa trop ci accueil bi amin amin amin amin amin amin

Moussa Fall coordinateur coordinateur mouvement Dolel Sénégal DG ñoo ngi lay nuyu bu baax DG ñoo ngi lay nuyu di la ci appui bi ñu defal di la remercier ci sa teewaay ñu lay wax ay information situation bi nga xam ni moo nekk Nord Élage situation la boo xam ne ni comité électoral bi fi nekk. ñu ànd ak say frère ñoo ngi def liggéey bu rafet liggéey bu am yaakaar ci suñu dëkk loolu ñu teg ko fan ci lu yomb lañ ko teg dañoo ànd ak sa frère Omar Diop mu teg fii loo xam ne nii ça fait presque une semaine deux semaines ñu inauguré un poste de santé boo xam ne nii vraiment tout le monde en parle sa frère Omar Diop moo def ñu ànd ak Maguette Sèye le ministre Maguette Sèye mu investir réhabiliter l' école de Mame El Hadj ko defal le quartier la ko defal suñuy doom suñuy rakk la ko defal ñu ànd ak maanaam Sèye bu jógee mu investir aussi sur les femmes ñëpp xam ne ñu l'autonomisation des femmes dafa nekk à l'ordre du jour loolu nag da cee dugal na ko mu leen avec des financements loolu aussi ñu ko ci remercier bu baax mais ginnaaw loolu lépp yow da ngay ñëw ñu assuré waat ci kaw doole ñoom ñi nga xam ne ñoom def nañu muy lan la l'emploi ñun 2016 ba léegi ñoo ngi ànd ak yow mais li ñu gis man dama kontaan ànd ak samay rak kontaan ànd ak samay sœur parce que vraiment quand bu ñu compté une dizaine de de de de jeunes yoo xam ne ni tey jëlal nga ñu ko. vraiment on le remercie vivement xanaa kay di ñaanaat loolu di gën a yokk ci kanam encore une fois na sa xel dal ci kër Mame El Hadj gëm nañu li ñu amoon ci législative incha allah rabi nañ ko amaat ci présidentielle bu nekkee suñu borom merci beaucoup merci beaucoup. maaleykum mbokk mi euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant xam naa nag tey wax ji du mën a bare comme ni ko Seydina Alioune waxee. mais dama bëgg nuyu rek ñi nga xamante ni fekk naa leen fii ndax man amaana ñii ñoo ma fi indi ma ñëw rallié wu bokk ci seen euh, mouvement muy dooleel Siré Dia euh, dama la bëgg a expliquer rek lu fi lu fi xaw a jaar lu ndaw loo xamante ni ñoom liggéey nañ ko ñoom ñi nga xamante ni ñooy ndaw yi fi nekk toog fii di leen liggéeyal parce que man nekk ma woon ak ñoom opposant laa waaye yàgg nañoo toog ñu may wax ci yow loo xamante ni lu baax la lu rafet ñu ma koy wax ci yow convaincre nañ ma ci côté yëpp mais mosuma am nangoo ànd ak ñoom mais damaa gis réalisation yi nga def ci dëkk bi aussi ak li nga defal suñu waa koñ ak ndaw yi fi ne li nga leen defal ñoom nag saa su ne ñu ngi dox ci loo xamante ni tànk jëmale mouvement Siré Dia ca kanam dox te saa su ne bu ñu waxtaan ak nag ci li ma ko défendre ndax moom au pouvoir la ne woon moi j'étais à l'opposition dama je suis étudiant man mu ne liggéey lu ci ëpp samay activité maa ngi koy mené à mais damay am damay am retour ci sama zone parce que bi ma nekk à l'opposition j'étais avec Momi Diagne Fada mais bi may bi mu ne bi mu demee ci les jeunes mouvement bi nekk université bi nga xamante ni PDS lañ doon ci ñoom nag ñoo def liggéey bu rafet ba convaincre ma ma ànd ak ñoom liggéey te liggéey boobu am nañ lii nii def dinañ la ko gagné incha allah di ngeen ko assuré avec 75 pour cent am na ci yaakaar bu baax a baax nag gis naa ne liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñu euh, élection yi ndax taxawaay bi ñu am ñu ngi liggéeyee li nga xamante ni moo ñëw ci kanam comme li ci mel ni élection municipale yi moom suñu kanam te am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ak réalisation yi ngay def gis nañ benn borom xel. lu ñu ñor rek la ñuy wax waaye am nañ yaakaar ne bu ñu la joxee suñu dëkk bi di Thiès teg ko sa loxo li ngay réaliser di ko mën a yaatal bu baax a baax a baax. dama ne dama ne dama ne dama ne est-ce que bëgg ngeen ñu jox ko dëkk Thiès bi mu nekk maire. waaw ci kaw loolu loolu kenn du ko mën a faj ndax ki joxul muy def bu ñu ko joxee mu def. nga ni ku joxul muy def bu ñu ko joxee mu gën a def waaw. kon joxul muy def bul ko joxe kon joxul muy def bul ko joxe kon joxul muy def bul ko joxe